Euh, Tambacounda. diw jëm ci yeneen i boor fi ci mel ne fa ay ñoom Bakel Wuroso euh, gi Kanel euh, ba ci côté maatam boobu foofee itam lan lañ fa mën a xaar par rapport ak internautes yi nga xam te ñoo mais ñoo ngi ñoo ngi xaar lu ëpp lu ñu def Tamba lu ëpp lu ñu def Kolda lu ëpp lu ñu def ci yeneen gox-goxaan yi luy wër Sénégal donc actuellement nu sommes rassurés nous sommes rassurés pour une victoire écrasante au soir du 17 novembre incha allah. Euh, ku wax Tamba wax li nga xam te ne moom moo di li fi amoon fan yii ba ci sax li nga xam ne moo fi xewoon ak opposition beeg yooyu noonu yow nga bokk ci li nga xam te ne moom moo di ci euh, ñi fare ci pouvoir bi waaye itam euh, ñoom loo leen di yóbbante rawatina li nga xam te ne moom nga gis fii ci population bu Tamba. li may wax opposition bi sax mooy nañu rejoindre pouvoir bi ñu tabax Sénégal parce que l'intérêt euh, du Sénégal mooy le développement nous sommes très très en retard fii ci Tambacounda dafa di région boo xam ne ni ki dafa regorger énormément de de ressources naturelles yoo xam ne ni ki mën nañ ko transformer boole ci valeur ajoutée euh, ñu mën a développer suñu Sénégal donc opposition bi nañu ñëw booloo nañu opposer sainement c'est-à-dire fu doxul ñu ne fii doxul pouvoir bi mën a ñëw doxal foofu loolu rek la mu doon intéret pour Sénégal ñëpp. malan kon mu nekkoon ki nga xamante ne euh, moom moo di Malang moom itam euh, bokk ci li nga xamante ne ñoom ñoo daal di euh, yore li nga xamante ne wala ñoom ñooy organiser lii di mbirum caravane beeg yooyu noonu gis ngeen ambiance bi gis ngeen déjà oto yi tout est bien rangé pour prendre départ fi nga xamante ne moom moo di fii ci Tamba ñu taxaw ki nga xamante ne di Marcel Marcel itam moom bokk si ñi nga xamante ne itam xàmmee ngeen leen ràññee ngeen leen ko. ku Sénégalais yi bëgg moom. Ah, mbindeef mënu si dara ku yàlla tànn ngay xeex ngay xeex yàlla amul solo ndax yàlla ku mu xas ba tànn ci kulli mu mbindeef leen ko ko waaye di xëy di wax lu bon si si nit ki taw xam da nga xam ne xamuloo ko maanul maa ngi gis nag ñenn ñi ñu ngi ñu ngi critique Ousmane Sonko moom di di wax ak Ousmane Sonko dama dama di naan. Sénégal fi amul opposition de bilaay amul opposition parce que bu ñu amoon opposition dinañ tal leneen loolu bés bu ñu yewoo jàppal Ousmane Sonko indil Ousmane Sonko bàyyi Ousmane Sonko jàppal Ousmane Sonko loolu rek lañ fi nekkee mm. kon nag ñun nañu focus. jërëjëf voilà loolu laa am pour pour wax leen. Marcel ñu jëm foofu nga xamante ne moo di ca Bakel ak ca boor boobu lan lañ fa mën a xaar. Euh, Bakel moom gëm naa ni euh, dina am dina am dina am nit moom franchement waa Bakel gars yi ñu ngi xaar loolu na ma comme la woon fa woon ni ko ni ko PM defee rek noonu lañ koy defee la woon fa woon ndox du bàyyi yoonam PM fépp fu mu def moom razzia la te man gëm naa ne moom élection yi incha allah ce sera lool leer na ma comme présidentielle bi am présidentielle bi dañoo am 54 mais bii nii on aura 99 pour cent ça ça change de sûr et loo gis démb ca Kédougou ak fii ci Tamba. non Kédougou Kédougou moom franchement sénégalais yi génn nañu massifié wu nañu ñëpp kontaan nañu PM génn na wax waxtaan ak ñoom ci lu jëm nag ci or bi mm-hmm. phosphate bi ak lépp li nga xam ne moom la ñuy transformé. ca Kédougou auparavant dañu daan nax di naan tubaab yi ñuy ñëw jël suñu suñu ressource am benn piste boo xam ne foo dañ koy jaarale yóbbu suñu or bi suñu zircon yi suñu suñu lépp daal en tout cas mais de toute façon sénégalais yeewu nañ ndax Ousmane Sonko moo ñu yee waaw ko Ousmane Sonko yee nag boo yeewoo baax na. boo yeewul xayrul mais gis nañ itam ci discours pros parfois yenn pic yoo xam te ne da koy lancé ñi di opposition am ci yéen focus ngeen woote woon euh, bañ a wax dara ci ni nga xam ne moom di opposition bi. waaw mais c'est normal c'est normal ñun nañu focus rek loolu mooy loolu mooy lu mooy priorité bi quoi focus voilà ñun leen lu ñu dañuy focus focus. focus ba bi voilà ñun nag ñun am na benn waay boo xam ne Bakel lañ ko jàppee woon du ma tur bugaan nga bëgg a wax. non du ma tur kooku Bakel lañ ko jàppee woon waaw man mii juriste la dama xam lu si juriste refus d' obtempérer loolu dafa garaaw loolu rek dafa garaaw asumak quand le quand le président est dans un lieu qu'on lui dit stop. nga accéléré loolu refus d'obtempérer la loi daan na la lu mat deux ans à six mois d'emprisonnement ferme mais Bougane dañ ko yërëm moo tax ñu bàyyi ko quoi mu dem campagne mais boo seetloo ba mu génnee Kédougou di wax la wax gars maa ngi leen di sàmm sa kàddu mi nga ñu jox rendez-vous le 17 avril Bougane bul sonko sonkolu mais Bougane s'il vous plaît rek. xam naa ne fi nga nekkoon dina la yar lu bëree bëri dina la jox leçon lu bëri bëri parce que da nga juum ñun dañuy focus ñun sur le 17 novembre mais pas avril avril pour pour pour cantakun la Cheikh Béthio Thioune moo ko moom anniversaire Cheikh Béthio Thioune la looy yóbbee élection yi ba euh, ba ba avril loo tiit bay daanu ko loolu jaroo ko fi ah waaw wala. loolu laa mën pour wax. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jaajëf voilà kon Marcel bokk si ñi nga xamante ne itam euh, comme ni ngeen ko gisee euh, fii fi nga xamante ne voilà jàmbaar euh, ñu ngi lay nuyu yaa ngi en direct ci 313 digital tey noo gisee ambiance bi fii avant départ li nga xamante moo di cortège bi. ñun ñu ngi fii si Tamba man Ziguinchor laa jógee. may sant waa Ziguinchor fu ma toll di sant jàmbaar yi nga xam ni ñun ñoo àndoon nag moom di xeex ñoom laan nañ ban wàcc di leen wax gàcce ngalaama yal na leen yàlla xare àjjana man nag li ma jàpp bu baax a baax ñun ñi ngi xeexle Ousmane Sonko pour mu gagné ensemble waane Sonko lépp looy xeex lu ne da nga fiy fekk nga gis sa sa njariñ mi ngi doog a toog ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu dem am vingt ans loolu rek lañ koy ñaanal ñu toog si nguur gi vingt ans jamaa ju toogee ba jeexal jox sonk mu continuer te yàlla mën na ko yàlla na ko def ñi ngi ñaanal Sonko nag di ko gërëm di ko sant xam ne lii du kenn jëmmi suñ borom la nit nag doo bàyyee suñ borom sa bopp suñ borom dalay teg loxo te Sonko lii suñ borom moo ko teg loxo ñun ñu ngi koy jàppale. ànd ak gardien yi garde corps am yi depuis Tamba ginnaaw yàlla duñ jógee Tamba ñi ngi jëm euh, Bakel uti Matam dinañ ànd ak moom ba Dakar ba mu tëj ñu ñibbi wàllu Ziguinchor di ko ñaan nag mu bañ mu fàttali ko côté Ngaye mairie na Ndakaaru ndax seen tali bi baaxul. diggante Thiel ma xa jàpp Ngaye. waaw ay mairu defu wa dara. yoon wa sax na meloon moo mu euh, bàyyi woon ko nan meloon moo tane woon instant yi xolli nan ko la ko commencé cil maxambaakol wuti mbaaba garage dara baaxu si waaw ay meeru liggéeyu fa dara waaw loolu nag sama dëkk lu ma kaas kaas naa kaasal sama dëkk maa ngi ñaanal ñi dee nag di leen ñaanal yéen journaliste yi ñoo ngi waajal pour dem euh, Bakel wasalaam ñoom bugaan nag mën na noo dal ah. ku yàlla may doo ko bëggee suul yow yaay suulu ñoom bukaan nan nan nan nan nan muñ xam ne lii yàllaa ko euh, dogal de heure bu ku àpp bi jeexee day jeex ndax gis nañ fi Senghor gis fi Ablaye Wade wa salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf jërëjëf kon euh, ñu jëm itam ci ki nga xamante ne comme niñ ko mën a waxee euh, di Diallo Diallo koo xamante ne moom mooy chargé de presse bi ci campagne bi Diallo maa lay nuyu. maa ngi lay fay. tey ñu nekk ñu nekk fii ci kanamu école bii di waajal li nga xam te moo di départ bi déjà noo gisee ambiance bi rawatina itam jour ñaari journée de mobilisation yi nga xam te ne def ngeen ko ci zone bon en fait xam nga di sant yàlla bu baax a baax comme euh, comme nee nañ ñun rek euh, ñun ñooy campagne. Mhm. donc euh, on a fait une très belle journée hier entre Kédougou ak Kédougou ak Tamba vraiment kontaan nañ bu baax a baax Kédougou nag moom à chaque fois suñu dugg depuis 2019 nii lay demee à 10 kilomètres gars yi dañuy ñëw indi seen i ay moto des milliers de moto parce que ñoom noonu la ñuy teertoo gan boo demee Fouta dañuy génnee seen i ay fas ñu topp leen ci convoi bi génnee fas yeeg yooyu mais Kédougou seen ay moto la ñu am c'est une zone boo xamante ne moto lu fa am solo la ñu ngi génn sur dix kilomètres ñu topp la corner vraiment teerul ñu teral ñu ba nga xamante ne on a fait pratiquement deux heures de temps pour atteindre le terrain et c' vraiment l'apothéose kontaan nañ ci bu baax a baax di remercier bu baax baax waa Kédougou parce que depuis 2019 président saa yu duggee Kédougou musul dugg Kédougou mu géey musul dugg Kédougou muy raam musul am il faut que toujours que population bi génn ñoom ñu ànd ak moom donc une mobilisation exceptionnelle à Kédougou hier ñu ñëw Tamba nag feelu ko ak meeting boo xamante ne vraiment bokk na ci meeting yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a marqué euh, li nga xamante ne moom moo di campagne bi pour le moment donc muy ñaari mobilisation yi exceptionnelle ci zone bi nga xamante ne mooy pôle sud-est bi mooy comme ni ko président waxee euh, dans son discours euh, mooy zone bi nga xamante ne dans les normes moo gën a riche Sénégal parce que tey boo jëlee horizon deux mille cinquante bi ñu wax. dinga nga am un PIB de deux millions par tête deux millions de francs CFA par tête jamono yii nii nii nii boo xoolee rek ci données li ñu joxe li données yi joxe tey kee Kédougou moo war a nekk dëkk bu gën a riche. ci Sénégal ki dëkk ki Kédougou le Kédovin moom moo war a nekk ki gën a riche parce que actuellement soo xoolee li fay génn ci richesse war nañ am nit bu nekk war na am quatre cent mille de revenu euh, du PIB mais instant bi ñoom gisuñu ko parce que dañuy extraire seen i ay or dañuy extraire seen ay ressources di koy yóbbu feneen ba bokk na moom ak Kaffrine ak euh, Kolda euh, les les quatre régions les plus pauvres du Sénégal dans la réalité muy paradox boo xamante ne Sénégal 2050 vision Sénégal 2050 buñ ci incha allah loolu yëpp dañ day dañ waaw loolu bu ñu paree rek incha allah bu ñu demee ba jël assemblée nationale ba def les réformes qu'il faut loolu yëpp dafay dañ parce que la renégociation des contrats pour certains doit passer aussi ci li nga xamante ne moom mooy assemblée nationale mais itam réduction des comptes et euh, la révision du code minier du ak yeneen yoo xamante ne ay réformes yoo xamante ne dafa war a am donc euh, Kolda euh, Kédougou Tamba. Euh, c'était vraiment exceptionnel tey nag ñoo ngi nii war a départ war a def Ranérou war a def Bakel. war a def Ourossogui. Euh, war a def Kanel. Ourossogui la ñuy fanaani incha allah donc euh, na ñëpp génn. naaj bi tàng na mais je vous le promets vous allez voir que c'est là ça sera là. lan la militant yi mën a xaar ci état bu tey bi. état bu tey bi comme d'habitude rek. c'est la rencontre du président Ousmane Sonko avec son peuple et son peuple day génn. population bi day génn askanam dafay génn askanam muy naaj muy taw ñoom duñ koy duñ koy topp mm. euh, fi ñu jëm tàng na lool mais macha allah ay gor ak ñu fier ñoo fa nekk te dinañ génn teertu teral le président Ousmane Sonko parce que c'est la seule constante de la politique sénégalaise de 1960 à maintenant li mu li mu am yàlla moo ko ko may. ak taxawaayam donc ñu ngi leen jox rendez tey di ngeen gis euh, dinañu reeri tey ñiiri bunaa la ñuy reeri ay laccir xaako vraiment tey Fuuta ñoo ngi ñëw waaye itam le bundu ñoo ngi ñëw gars yi nañ ñu xaar incha allah on sera bientôt là et comme on a dit ñun wane nañ ñaati kilomètres la ñu daw depuis sept jours démb on a on a fait cent trente deux kilomètres kilomètres la ñu daw ñeneen ñi nañu wane seen kilomètres yi ñu daw. mais benn waaw nga xam ne dara du yëngu la. waaw pas-pas la pas-pas bu nekk ci Pastef moom la ñu àndal gëm-gëm la bu ànd ak président Ousmane Sonko muy engagement ak détermination bi xale yi àndal xam nga loolu boo koy def joxuñu kenn dërëm. fayuñu kenn woowuñu kenn waxuñu kenn dara ku nekk daal heure bi dafa jot nga xam ne yow lii mooy sa wàll ci réew mi nga ni ko xaar ma jaarale ko Pastef ma matal ko ba mat sëkk on a une excellente organisation la sécurité la presse Euh, la team organisation magnifique lépp lu ñuy def dañ koy teg ci yoon te incha allah tout au long de la euh, de la caravane parce qu'il nous reste encore dix jours de campagne incha allah nit ñi dinañ gis ni li ci kanam raw li gën. jërëjëf jërëjëf Diallo mu nekk euh, ki nga xamante ne moom mooy di jàllo moom nekk le chargé de comme ki nga xamante ne moom moo di ba tey rek chargé de com li nga wala boog moom moo chargé li nga xam ne moom di presse bi. comme ni ngeen ko gisee ni kon dañuy daal di woy rek ànd ak yéen jël li nga xamante ne euh, moom moo di euh, la réaction waxtaan comme duñu gën ci parti bi depuis 2015 ba léegi ñu ngi ci àndandoo ak moom di liggéey daanaka euh, le président xam na may kan xam na aussi li nga xamante ne liggéey nañ ko ci parti bi ba tax na bu defee choix bi dañuy xam ni rek dafa dafa am fu ko teg te dafa am confiance bi mu am si ñun moo tax mu def ko te incha allah li ñu mën a li ñu ko mën a assuré li ñu mën a dalal xelam dalal xelu sénégalais yi mooy on essaiera d' être à la hauteur ah des attentes de la population ba nga xamante ni choix bi président Ousmane Sonko def ci ñun ah, def ñu deuxième sur la liste nationale dinañ ko toogee dinañ ko mate dinañ ko wax ba askanu Sénégal yëpp xam nañ ni am nañu de digne représentant au niveau de l' assemblée nationale. Pourquoi ngeen boo leen boole leen toog waxtaan ak ñoom si booleen ma fale mais da ngeen waxtaan dëkk boobee lan moo ay ressource nan lañ mën a def ba maanaam gox googee dem que ngeen changé maanaam maanaam anim googee ngeen di battre campagne. xam nga parti bi bu buñ ko sosee en 2014 ba léegi dañuy wax ne nous on fait la politique autrement façon politique bi fi amoon dañoo wax ni façon boobu baaxul méngoowul ak attente askan wi façon politique bu nga xamante ni ndaxee mbaay dong lay indi ñun nag li ñu bëgg dañu nit ñi ci projet te boo woowee nit ki ci projet il faut nga tegal leen détaillé leen yow fi nga bëgg jëmee askan bi parce que askan bi bu xamee bu ñu xamee fi nga leen bëgg jëmee yaakaar naan pour ñu ànd ak yow dafay yomb gis ni bu ngeen gisee cette forte mobilisation autour de la caravane zone bu ñu dem nga gis ni mobilisation bi da ngay naan euh, la ma bàyyi fële lii moo ko ëpp foofu foo dem rek mu mel ni concurrence la dans tous les départements kon nga mën a xam ni liñ leen jaay ci projet bi depuis ñu ba léegi adopté nañ ko bëgg nañ ko te wone nañu seen engagement pour ànd euh, gunge euh, le président Ousmane Sonko gunge son excellence le président Bassirou Diomaye Faye pour que ñu mën a yeggale li nga xamante ne moo di projet bi gis nga nit boo ñëwee ni leen voté leen ma da nga leen di wax lan nga namm ci ñoom pour ñu voteel la donc on convainc par les idées hmm. on essaie de convaincre la population par les idées ñun politique bu ñu wootee mooy vraiment politique boo nga xamante ni euh, idées yi la ñuy indi hmm. confronté wu euh, képp ku d'accord ak ñun xayrun ku d'accordul aussi débat bi débat débat lay doon ñu waxtaan ci ba déggoo ku convaincre askan bi bu ñu yeggee ci urne ba population bi voté la depuis ñu commencé ba léegi loolu la ñu def parce que gis nga ni en 2017 le livre Euh, pétrole et gaz euh, chronique d'une spo euh, d'une spoliation wax ci li nga xamante ni moo di les ressources yi nga xamante ni mi ngi Sénégal ci anam yu ñu koy joxe yu jéggul dayo yi nga xamante ni vraiment mi ngi les bu ñu ñëwee ci zone yi ñu ñëwoon démb rek Kédougou Tamba mu nekk ay zones yu nga euh, mauvaise euh, euh, gestion ci ressources yi la te loolu nekk na lu nga xamante ni ñun dañu indi ay proposition vraiment pour mën a apporter des solution pour régler cette situation la ba nga xamante ni zone bi économique développement dina mën a dundaat mais population bi ci mën a sentir seen bopp bu baax. ñoo ngi en pleine campagne. mbeen en tant que jigéen bu nekkee ci assemblée nationale lan la jigéen ñi mën a xaar ci yow. bon li ñu mën a xaar ci ñun bari na li ci li ci jiitu mooy ñu représenté leen dignement euh, li ci topp mooy euh, on sera euh, donc euh, euh, modèle de femme bu nga xamante ni yeneen jigéen yi nga xamante ni xëy na yëpp bëgguñu def politique wala euh, xëy na ñàkkoon nañu motivation donc on essaiera de faire en sorte que ni suñu taxawaay ci assemblée dina leen motiver pour que ñu mën a euh, vraiment euh, dugg ci li nga xamante ni moo di langue politique bi parce que dañuy wax ni lépp lu ñuy def defuñu ko avec yow donc yaa ngi ngi koy def contre yow et je pense que ni la femme dafa nekk couche bu bu vulnérable couche bu important bu nga xamante ni dañ leen war a jàppale waaye ñoom it dañu war a suuf seen loxo ci liy doxal dëkk bi parce que lu jigéen dugg pour mu dox day daal di yomb Euh, lu nga xamante ni jigéen mi ngi ci activé wu rawatina nag euh, dañuy jouer rôle bu am solo ci wàllu économie bi parce que gis ngeen ni euh, jigéenu Sénégal kenn yaa si si ñu ñeme daan seen doole lañu ñu ñeme liggéey lañu kon ñooñu bu ñu leen gënee dooleel gën leen taxawal yaakaar naa ni pour Sénégal jëm si kanam dina gën yomb en tout cas lépp luy loi yu nga xamante ni dina ñëw moo xam ci code de la famille la pour gën a renforcer li nga xamante ni moo di taxawaay jigéen la gën leen yokk li nga xamante ni moo di seen i droit dinañ ko dinañ ko xeex dinañ ko taxawee donc euh, ba nga xamante ni à travers lépp lu nga xamante ni moo di euh, des réformes yu ëmb projet bi aussi pour Sénégal mën a jëm ci kanam dinañ ko taxawee bu baax a baax li ñu bëgg daal mooy nekk modèle de député bu nga xamante ni faamu Sénégal yëpp dinañ ko rafetlu dinañ ko naw ci taxawaayam et dinañu bëgg aussi vraiment jéem pour que ñu mën a représenter. kon mu nekk ki nga xamante ne moom moo di Mbène fay Mbène fay nekk euh, deuxième euh, au niveau euh, wala boog mu nekk deuxième ci liste nationale bi moom Mbène Faye kon mu ngi noonu ñu ñuy xamal ne kon le président Ousmane. wàcc kon euh, ngir daal di jël départ euh, ngir wutali foofu nga xamante ne euh, comme ni ngeen ko gisee noonu ca fi nga xamante ne moom moo di ca Ranérou wutali foofu ca Bakel waaye itam jëm foofu nga xamante ne moom moo di ca Wuro Soge nga xamante ne foofee lañ fas yéene passé la nuit bu ñu changé wul li nga xamante ne moom moo di le programme kon mu ngi noonu d'une minute à l'autre on la sortie du du premier ministre Ousmane Sonko waaye itam du président du parti Pastef Ousmane Sonko ba ci sax ak li nga xamante ne euh, moom moo di euh, euh, la tête de liste nationale de Pastef kon ñu ngi nii jamono ji ñu ngi fi nga xamante ne moom moo di fii ci hôtel Le Virage Prestige fi nga xamante ne moom Ousmane Sonko ça fait deux jours a ngi nii fii lay fanaan deux jours a ngi nii fii lay dalal ñi nga xamante ne ñoo di ay ay ay rawatina ñi nga xamante ne ñoo nekk fii au niveau local kon euh, jamono ji nag gis ngeen ko nii cortège bi euh, pare na ngir caravane bi daal di jël li nga xamante ne moom moo di yoon wi wutali foofu nga xamante ne moom moo di ca Ranérou wutali foofu nga xamante ne moom moo di foofu ca Bakel ba ci Ranérou. kon gis ngeen ambiance bi nga xamante ne ba léegi moom moo fi am sànq ñu ngi leen doon ama ñu ngi leen doon dëkkalal micro ki nga xamante ne moo di Awa Faye euh, nekk deuxième au niveau euh, de la liste national kon bu Ousmane Sonko passé moom moom moo daal di euh, top ci li nga xamante ne moom moo di ci liste bi. man maa ngi dëkk fii Tambacounda quartier Medina Coura. Hmm. Mhm. la moo tax nga ñëw fi tey Sonko. Sonko jaral lu ne. Hmm. jar nañ taxaw ci naaj bi fii. Hmm. xaar ko rek. ndax bëgg gis. parce que instant Tamba dañoo nekkoon ci ginnaaw yeewuñu mais ak pro dafa yee jeunesse bi parce que dañoo tardé woon mais ak pro wax dëgg yàlla yee nañu macha allah Ousmane Sonko rek ca kaw ca kanam te lu mu namm Tamba fi dina ko am incha allah incha allah nu mu namm ci Tamba fii dina ko am bu soobee yàlla jërëjëf. kon on attend d'une minute à l'autre rek la sortie di premier ministre Ousmane Sonko kon fii nga xamante ne moom moo di euh, fii ci hôtel bi kon mën nañu xaar rek euh, xam nañ ne euh, léegi tey moom Ousmane Sonko dina parce que garde rapproché baa ngi noonu déjà génn na ba noppi kon moom moo war a wàcc kon moom. directement indirect. voilà kon mu ngi noonu comme ni ngeen ko gisee nii kon jamono ji nag li ñuy xaar mooy. mooy la sortie du premier ministre Ousmane Sonko fii nga xamante ne kon moom moo di euh, fii ci biir hôtel bi euh, du yàgg parce que tout est fin prêt ngir ñu daal di kon euh, fii ci biir hôtel bi du yàgg parce que tout est fin prêt ngir ñu daal di kon départ gis ngeen noonu militants yi déjà autour de l'endroit autour de li nga xam ne moom moo di ci hôtel bi gis ngeen ko noonu oto baa ngi nii kon day daal di placé wu nga xamante ne moom bu génnee rek euh, automatiquement ci oto bi lay daal di dugg euh, waaye gis ngeen askan wi nga xam te ne ñoom ñoom ko fi xaar askan wi nga xam te ne itam bëgg nañu découvrir gisee ki nga xam ne moom moo di seen lider askan wi nga xamante ne boobu ba léegi gaa naaj bi tàng na boobu ba léegi gaa li nga xam ne moom moo di euh, toutes les conditions ne sont pas peut-être réunies ci côté euh, climat et tout waaye gis ngeen askan wi démb ba léegi à chaque fois buñ fi daal di euh, tasee rek euh, sooy yaa ngi yaa ngi en direct 313 digital nga taxaw fii ngir gisee ak ki nga xam te moo di la premier ministre Ousmane Sonko lan moo waral même condition yi teewul nga taxaw fii ba léegi. bon franchement parler moom mooy suñu lépp mooy suñu àdduna mooy suñu àllaaxira hmm. man en personnel bokk. ndax moom lu ma defaral moom gisuma fi benn politicien bi nga xamante ne defaral na ma ko sama biir réew. muy lu mel nan mooy que parce que dafa ñëw ñu